Amar Ndiaye luy bëgg a xew waaye tubaari kàlla macha allah nee naa la Fatou Bintou Rassoul rek moo woote foire première édition di ko defee Anvers entrée ba gratuite la ñi nga xam ne nag tubaari kàlla macha allah dañoo bëgg jënd nag seen stand bi ñoom 50 euros képp la ñuy fay ñu ànd ci nag Asbaba tubaari kàlla ah le grand tambour majeur lu jëm ci animation bi nag Mari Ndiaye ak Modou ak Modou Mbaye lay doon tubaarikàlla macha allah nee naa leen nag nanu waat jàll di ci woo les grandes dames di ci woo waa Paris waa France di ci woo nag tubaarikàlla bépp femme entrepreneuriat rek ñu ngi ñu ngi ñu woo pare da cee ànd ak ki nga xamante nag mooy Joona Bouti House tubaarikàlla moo ni accompagné ci événement bi pour le 30 novembre kon nee la luy doy doy na cas mu yëkkati attan naa ko na xarit takku ba dëgër di woo Bruxelles di woo femme battante ñëpp kon Modou Mbaye lii la Fatou Bintou woote. waaw Marie Ndiaye loolu bu ko kenn wootee Fatou Bintou moo woote te boo kooku bu wootee ñëpp a war a wuy si. looloo am muy jigéen bu baax nekk koo xam ne grande dame la nekk ci dëkk bi di fi def lu baax di ko fi wax kon ah foire plus taxanu law bale dañuy ràcc mbeeraay tubaarikàlla lal basan yi réew mu yëngu tubaarikàlla macha allah nee naa la luy doy doy na dina neex dina yëngu dina tàng tubaarikàlla xam nga nag la may bañ bàyyi ba jour bi nag ñi nga xam te dañoo bëgg a jaay naan ma mari njaay na la ñuy def pour réserver pour mën a am suñu stand pour mën a jaay tubaarikàlla yéexati ñàkk la romb ci rëccu jég bu ci xoole tubaarikàlla ba amoo ci stand yi tubaarikal nag ah bu ma kenn réclamé mm. te nag les places sont limitées 15 places kese la ñi nga xamante ne ñoo def seen expo pour man a jaay entrée nag gratuite la kon tubaarikal la cas ma yëkkati rek kon nee surtout pas manqué on se donne rendez-vous le 30 novembre incha allah wa rabbi tubaarikal ak Fatou Bintou tubaarikal dina neex te yëngu jaajëf je vous Kenn

ñu bokk foree ak lekk naan mais li ci gën a am solo mooy nga xam bit bi ko indi waxtaan bi jaay bi xam nga ak financement yeeg ak kooku boobu jaay lan dafa bëggoon ñëw fii gis na jigéen ñi liggéeyee moom la mën a jëmalee kanam si nekk lan nga a xalaat ak lan nga mën a liggéey. ba na moo tax mu bëgg a ñëw fii def waar pour nit ñi mën a saafantoo parce que nit ñi dina gis nit ñi tamit ñu ngi dépassé benn affaire mais day nekk day demal kenn du xam kii bi xam nga moo tax mu bëgg indi fii foire bi ku ci gis sa bopp yor njaay ak lépp lu mu mënti doon man nga ko indiwaale gën a xam nga business bu gën a jàllante xam nga loolu la nee na mini foire la 15 place kese moo si nekk jaaykat yeeg yooyu waaw nee ñu si des ñëpp mën nañ ñëw soirée bien bienvenue en français la nee na mën ngeen ñëw oh. xam ku nekk indi sa jaay ñu gën a xamante gën a jàppante nee na à octobre la ñu ubbi inscription yi muy suba ku bëgg a ñëw mën nga inscrire mais place vingt places kese la ñeneen ñi à quinze ans quinze places moo si ne ñeneen ñi ku bëgg ñëw tamit mën nga ñëw pour xam nga nit ñi tamit xam li ngay jaay li ngay joxe loolu xaar leen moom pare nappi leen tuuti ñeneen ñi déglu ñuy jaay mboolem muy def nee na li tax mu choisir Anvers communauté bi la bëgg ñoom ñëpp ñu ñëw si foire bi ndax na gis na waa Anvers ñu ñu booloo dajewoo bëggante moo tax mu bëgg def fii foire bi. waaw waaw. nee na moo tax muy ñaan dëkk boo fiy dugg da ngay fëgg. dajal nit ñu baax ñi xale jigéen ñi rek ñoo ko fëgg dëgg du neex hmm, fëggal <laughs> dégg li <laughs>